di si jëmm ju tëdd ji ñëw nañu fi nag man ak délégation bi ma àndal muy le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak euh, le ministre Dame Diop bi yore artisanat ak formation professionnelle ci ndigalu président de la république di nuyu di ziar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 taxawaay boobu euh, di ñaan nag suñu borom gën ko gàttandog tawfeex ba lim semb lépp yàlla yombalal ko ko defal ko ko ko na ko bëggee yàlla ko sax nu gaa nu kawe njortam loolu ko ñaanal bu baax a baax a baax euh, li li jëf ci noonu ngir sëñ Tuubaa sax bari na waaye jëf ju mujj ji nag moo moo moo moo mottali lépp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 yàlla moo xam li bëgg waaye lu mu ko xam ko yàlla ko gën xam yàlla defal ko eh, dool ko ci ndam doole ko ci ndam doole ko ci barke loolu rek la loolu rek la kon yow maa ngi cant gi nag maa ngi jabog Sëñ Tuubaa képp bokk ndax jëf jëf to jëf ji demee noonu jëf ji toll te it sa sa sa yéene ak sa yitt ak sa taxawaay ci lépp loo xam ne mu ngi jëm ci sëñ bi loolu yow jiitu yàgg na yàgg na sama diggante ak yow si nii la ko président sant rek ni nga ko ni ko defee ndax fekk na ma xam ci lu jiitu sa sa sa sa taxawaay ak sa yitt ci ma jërëjëf